tey dañu ñëwoon ngir euh, teewee cérémonie bu am solo Sococim dafay def at bu jot mu jël lu toy ni juróom-ñaar fukki prix tey daf joxe nañu juróom-ñaar fukki prix yoo xam ne ñu ngi ko destiné élèves élémentaire élèves moyen ak élèves secondaire mais dañ si toftal leneen mooy ay bourse bourse yoo xam ne daanaka dañu koy jox élèves bu ñu demee université ba bés bu ñuy jeexal seen njàng maanaam ba doctorat mën nañu di am xaalis bu tàkk boo xam ne dañu leen koy jox par te wax dëgg yàlla loolu dafa nekk ndimbal bu ñu xamee jafe-jafe yi nga xamante ne moom la étudiants yi di amee bu ñu demee université. donc Sococim daal mën naa wax ne partenaire inspection d'académie la boo xam ne yàgg nañu te li ñuy def mënu ma ko lim fii boo ko doon lim dafay gudd mais li ma jàpp moo di ne Sococim dañuy continuer di liggéey ak moom parce que am nañu ay ay gis-gis yu bari yu méngoo si lu jëm si mbiru culture ak lu jëm si mbiru éducation. ndax bu fekkee ne prix yi dañ koy jox ñi nga xamante ne ñoo man jàng rek bon bu bés baa du am équité équité mooy tollale dafa am ñoo xamante ne mën nañu jàng gaa mais am nañu jafe-jafe yoo xam ne bu ñu leen dimbaliwulee seen jàng man na bañ sori moo tax dëgg-dëgg mën nañu wax ne lii Sococim di def lu xelu la lu xelu la ndax mënoon nañu wax ne ku jël paie rek ñu jox la mais waxuñu loolu dañ ne képp ku am jafe-jafe itam nañu la jox ngir ne sa jàng mën a sori nga avons fait am yenn nous jafé nga tax ñu euh, élèves du département de Rufisque ak Barnier. environ 100 élèves nous ñëw tey ni jox leen ay prix parce que fondation sukusim la direction générale nous dañoo vraiment bëgg apporter pierre à l'édifice ci éducation Sénégal donc surtout dans le département de Rufisque mais lu gën a am solo mooy quatre nouveaux bacheliers yi nga xam ne am bac te nar a poursuivre seen études yi au Sénégal donc dinañ am ay bourses yu leen permettre tous les mois ni mën a fay scolarité ba dem ba ci doctorat donc loolu je pense que lu important la et ci politique RSE wu Sokosim éducation de ci am solo parce que dimbale xale yi ni mën a jàng pour doon ay dirigeants wu ëllëg loolu c'est très important ci politique de l'éducation du Sénégal waouh comme nous ngeen dit, madame Ba mon proviseur lycée Abdoulaye Sadji wax euh, je pense que nous avons waxtaan fondation pour nous mun vraiment dugal leen et puis voir aussi avec les autorités académiques de Rufisque naka la ñu mettre en place partenariat la ah, série S et série scientifique mooy Madame ni vraiment xale yu xarañ ci mathématique physique chimie donc nous le vraiment xale yu il faut ni dimbale parce que série scientifique l'eau am solo et je pense que c'est un avenir vraiment tracé